fan yii moom boo seetloo daa mel ni bokk nañ ci ñi téye bës bi ci dëkk bi. yéen ñi waaw APS. Ah, gisoo li ñu def samedi passé le congrès euh, extraordinaire d'investiture suñu candidat Amadou Ba ñu ngi ci liggéey bu rëy ci liñ nekkoon de 2012 à aujourd'hui mhm. foofu rek foofu lañ nekk de di mobiliser militants yi pour juste la victoire de Benno Bokk Yaakaar au premier tour mais que nekkul euh, Euh, est-ce que c'est pas honteux le fait que parti bu mel ni parti socialiste ne Amadou Ba moom mooy candidat koo xamante ne def na compagnonnage ak Macky Sall nekk bon bien que man góomu loolu sax mais mën nañu wax euh, noonu lañ leen di woowee gouvernement libéral Euh, que parti socialiste léegi dafa fondre si lu nga xamante ne moom mooy coalition benn Bokk mhm. Yaakaar mhm. et puis parti socialiste moom euh, il est l'ombre de lui-même ñoom mënuñu sax proposer benn candidat boo xamante ne candidat bu sérieux pour dem si élection avec plus de 60 ans d'histoire dans ce pays est-ce que c'est pas honteux de leur part bon c'est trop dire mais nangul naa la ko on est en démocratie ku nekk mën na wax li li ko neex mais yooyu ngay wax noonu yooyu yow yaa koy wax ak say yenn morom yéen a gëm loolu mais ñun gëmuñu loolu. dama posé question kese. waaw maa maa maa ngi ciy ñëw rek xam nga yow li nga gëm nga wax. avant ngay posé question da nga développé. mu jëntel euh, est-ce que c'est pas honteux de xawma lan nangul naa la ko mais man li ma jàpp mooy euh, tant que ñu ñu ñu ngi am ambition wu defar réew mi. di ko mën a ànd ak Benno Bokk Yaakaar dinañ continuer di ko def. pour pour. ak PS fi mu jaar yëpp Pape aussi li mu wax aussi y a une part de vérité. PS fi mu jaar am na ñu daan ànd ak moom bi muy jaar foofu noonu. Mhm. Ablaye wat libéral la ak PDS ñaata yoon lañ dugg ci gouvernement socialiste xam nga dugg ak génn. ak mais ñëpp xam nañu c'était des des entrées ñu ñun nag nekkuñu ci entrée politique ñun ci en. yéen ci opportunisme ngeen nekk. waaw bu la neexee xam nga fii nii ku nekk li nga gëm ak ni ngay gisee moom ngay wax. ci opportunisme mais bu ñuy def ci opportunisme ci cadre intérêt général population bi on l'assume ñu nga ca ba léegi ay ñun ñi nekk ci parti socialiste wax nga ko am nañ histoire parti socialiste ay ay ay ay responsable ñoo fa nekk yu responsable laa la wax nga jàpp ne décision yi ñu jàpp ne daf dafay neex kenn rek mu génn ne dañuy continuer def lii déedéet dañuy toog waxtaane ko vous pensez que ne candidat moom da nga koy génne nii rek pour ñu ne diw génn na candidat bokk na <laughs> duñ def loolu ñun candidature balaa ñu koy teg mu ñëw mu nekk un candidat purement socialiste ici des rangs socialistes dañ koy jàngat bu baax ba xam lan la am bu ñu demee. mais mënoon ko am. sans sert à rien d'être candidat pour être candidat. mais mënoon tolloon ko am parce que ñëpp dem nañ kan moo fa nekk. ah kenn nekku fa. ñëpp dem nañ. ah bon man maa ngi nii dew ma di. non mais franchement. voilà. soyons sérieux un peu. ah pourquoi pas. bon maa ngi nii dew ma di. pap pap ah, ba nga jàpp ne deux cent et quelques yi dem jëli parrainage amul ñu ma fa ëpp ay nit. gën leen doon responsable. mais deux mais deux cent yooyu ñëpp ñëpp xam nañu damay wax rek damay wax rek dama lay expliquer rek. maa ngi nii socialiste la te dewuma fenn maa ngi parti socialiste. lan nga peser biir parti socialiste. c' est c' est pas une question de peser quelque chose mais c' est une question d' être dedans et d' le socialisme ñun loolu la ñuy def parti socialiste boo demee foofu da ngay fekk fa. ay Alioune Ndoye kan moo ne posé wul dara.